asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet Senfootball TV nuyu naa leen bu baax ziar leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo remercier leen bu baax ndax démb bi ma defee vidéo Abdou Diallo bi donc gis naa commentaire bi mu leen waxee dem leen si VPN ngeen télécharge ko dina ma jàppale ci liggéey bi pour nii na man lan moo tax VPN VPN c'est très important pour liggéey bi parce que ñu bëri di sama ay internet dañu may woon Mouhamed defal cagnotte pour nga mën a dem Coupe d'Afrique wala sax Coupe du Monde bi xamante ne 2026 la te aussi tamit def cagnotte gars yi di jox xaalis dafa xaw a métti quoi xam donc fii réew mi toll nii Euh, loolu métti na donte ñi ma ko proposé bëri ma gis ne xalaat bu rafet la xalaat bu naaj la xëy la euh, mënoon naa ko def maintenant nag pour man VPN bi mën na ma dooleel war na ma mën a yóbbu Côte d'Ivoire incha allah xam nga war na ma mën a yóbbu tamit euh, en 2026 coupe du monde Sénégal la ñaan mu qualifié xam nga donc ñàkk naa Qatar bi ak yeneen coupe d' Afrique bi comme boo xoolee match beneen bii nii en temps normal xam nga financièrement bu ma taxawee damay dem match beneen damay dëgg bii dem bu ma jógee benee ma dem jubal Portugal xam nga loolu fédération sénégalaise de football waroon xëy na mënoon nañ ma ko defal mais bon xëy na aussi man tamit jëm ma ko xaar si ñoom xam nga donc euh, defuma ay jéego jëm si ñoom euh, man xam may wax ne YouTube bi ginnaaw suñu borom yéen laa si yaakaar xam donc euh, parce que a ma accompagné fu ma nekk yéen a ma fi nekk fu ma amee fit yéen a tax ma am fit xam nga a ngi may gis ay conférence de presse a ngi may gis si entraînement des

connecté nga soo a seetaan boo fekk bu fekkee amoo ko waxal ku la jigee ku xamante ne sa xarit la wala ku xamante ne xaw na xarañ tuuti rek euh, si mbiri euh, réseaux sociaux yi boo koy expliqué mu la koy téléchargé Play Store donc euh, wala bu fekkee iPhone nga yor Apple Store yu demee noonu nga. cliquer nga télécharger ko nga ñëw seetaan vidéo seen football TV da ngeen incha allah maa leen ko wax fii ak deux ans di gis seen bu fii xamante moom ngeen ma euh, yaakaar ne war naa fa mën a nekk war naa fa mën a teg sama tànk liggéey pour que football bi gën a jëm kanam incha allah bu neexee yàlla avec VPN bi war nañ fa mën a yegg donc képp ku xamante ne bëgg nga dooleel seen football TV xëy na bëggoon nga ma may xaalis xëy na bëgg nga ma yegg cliquer ko boo ko cliquer ba connecté nga ñëw seetaan sama vidéo loolu dina ma dooleel incha te di ngeen gis changement ci chaîne bi mbokk yi. Euh, après ma de seen question Abdou Diallo ak qui euh, di ñaxate euh, la lañ joté ma jox leen ci ay explication donc euh, Sofiane Diop bi aussi gis na yéen may poser question parce que benn vidéo la si def mooy bi mu ñëwee Dakar mané ne ñëw na Dakar ma xam maintenant nak développer wu ma légui ñu bëri dañu may laaj fu mu toll euh, ma ngi ci dossier bi ou pas yéen ngi may gis conférence de presse loolu je posé naa question Aliou Cissé ñu bëri ni ma question boobu laa waroon poser dama gis ne nekkul woon peut être actualité xam nga question bobu dafa laal question Sofiane Diop maa ko def exprès ne mais coach ñun dañu yow say militaires yi nga wo yépp ay défensif lañu 7 milieu terrain défensif pa mata sar mo xaw nekk offensif wala pap gi te ñom ñep sax 6 la jouer joué seen manam ay milieu défensif lañu donc comme mo wara a def le jeu comme mo wara nek la ligne entre le milieu et l'attaque mais Aliou Cissé dafa daw sama question de dama ay animation daw sama question ba génn ci mais man la la bëgg xamal na fofu ah amé cette milieu terrain défensif euh Sofiane Diop am na fi place fofu rek la doon waxé ma ngi dé espérer wax lo non pour tay jii bu may toog ak mom diko wax lo nag l'autre jour bi mu lay poser question li si li la jublu won parce que gisuma la gars bi xamante mo wara war le lien entre l'attaque et les milieux ñu bëri nak ñu man Sofiane euh Iliman Ndiaye wala Sadio Mané wala keneen c'est vrai que ñoo mën nañ ko def mais euh batay c'est pas le c'est pas les mêmes profils c'est pas les mêmes profils on a besoin de créateurs créateurs mooy créer occasion xam nga mais ay milieu défensif bu mu fees del ci ben liste da compliqué léegi nag man euh, de mon côté temps yi yëpp man ak Aliou Cissé war nañu ma waxtaan normalement démb waroon nañu waxtaan après waa fédération changé de football dañoo changé seen programme du coup mardi rek laay demaat entraînement des Lions te temps yi yëpp dañu waroon a dem mais après ñoom ñoo changé programme bi def ko ay huis clos mais sinon mardi incha allah ma gisee loolu laa ko njëkk wax naka coach yi xam naa ne xam nga ne euh, sawaay moo ngi fi euh, Sofiane Diop moo ngi fi Ismaël Jokos mii xam na Sofiane Diop yor na numéro ak yeneen joueurs yi muy Fodé Ballo-Touré wala contacté ko na ñëw Radisson fii jëm ñaaju ngeen waxtaan nga tegal ko sa projet parce que moom pare na pour ñëw donc loolu mooy sama discussion Aliou Cissé bi ñëw aussi tamit euh, leneen lu xamante ne bëgg naa ko wax mooy waxoon naa ko muy coupe d'Europe booy espoir yi euh, dem Maroc Maroc am na ay hôtel yi neex dëkk bi mooy loolu noonu mais tout le temps Sénégal lay lay ñëw donc mooy li may wax rek souvent bi pass wax naa ko ma ne business yi xam ne dañuy dal seen kaw man business bi xam ne dañuy ñëw jël xaalisam ay milliards am investir ko fi moom gën a Sénégalais bi xamante ne pour cent la mais dërëm sax daf ko koñam comme benn dame de dafi ñëw di bëgg Sénégal daal te instant bu mu ñëwee Sénégal instant boobu noonu xam dëkk bi tàng na foog nga bëgg réew mi dëgg nekk patriote pour ñëw fi xëy na fi de mu ngi mel ay Modou Sakho ay ay ay Evra xëy na football ñu Sénégal mais ñoo ngi fi def xaalis bu weextal nga gis benn sénégalais même pas jour mais milliardaire wala keneen ak keneen du fi def dërëm donc man kii ñëw di investir sama dëkk di dimbali samay doomi réew kooku sax laa gën a gën a bëgg donc la cas Soufiane Diop ñi la demee je pense que euh, rencontre bi rek moo des mooy que Aliou Cissé rencontré ak moom instant yi man nangul naa ne Aliou Cissé compliqué mënul dem fenn lenn rek moo mën a nekk moom booy bu ñëw euh, radio son fii jëm ñaajo loolu rek a mën a nekk mais euh, wala mu oo ko téléphone mais comme que Aliou Cissé téléphone bi ba tey wooteewu ko bon pour man Ismaila Jacobs lii Bouna Sarr doon def lii Edouard Mendy doon def lii yeneen joueurs yi doon def parce que Bouna Sarr boo boo leen fàttali ko si histoire bi un peu nee wax ak Boubacar Kamara lu bëri Edouard Mendy wax ak moom pour convaincre Boubacar Kamara mu ñëw donc ay joueurs Keita Baldé aussi gis ngeen ne def na ko sur Ferland Mendy sax sur Bouna Sarr pour ñëwal Sénégal donc benn benn Jacobs war na mën a def. benn Fodé Ballo-Touré war na ko mën a def yenn joueurs yi xamante ne xam nañu Sofiane Diop ba si Krépin Diatta bu fekkee bëgg nañu dooleel équipe bi bu fekkee bëgg nañu tabax notre génération bu fekkee aussi tamit dañu bëgg am un milieu créateur milieu bu xamante ne yora du jeu moo tax ma nekk ay contre benn yooyu amul problème donc xamal laa ko bëgg xamal foofu donc bëgg wax yi fi nekk ñëpp nekk ay défensif bu ñu dajee Bénin Eswatini euh, Malawi équipe yooyu noonu équipe yu ndaw yi nekk fii Afrique du problème di nga am jeu mën nga sax am ay bii c'est comme contre Mozambique mais boo war a ay Angleterre moo tax ma nekk bu ñu dee ak Angleterre sénégalais yi nee nañu euh, entre Rice Anderson xam nga donc euh, Bellingham on defuñu le jeu. xam nga léegi Aliou Cissé neen style suñu style bi bëgguñu ko changer maintenant comme mom le loolu dafa tok xamal né comme quoi dafa bëgg jouer ay France dafa bëgg jouer ak ki on a besoin de Sofiane Diop. on a besoin de Sofiane Diop encore une fois parce que amuñu ce joueur milieu terrain créateur amuñu ko manam li ñu amoon ay fariga am nga ci Henri Saivet am nga ci Pape Kouli Diop. amuñu milieu terrain créateur ba si Pape Aliou Ndiaye dina bokk yéeg ci kaw mais que des milieux terrain défensif profil yëpp nduroo daanaka ñoom ñëpp ay récupérateur lañ xam moo tax ma ne Pape moo xaw a tane ak Pape Gueye relais mais gis ñëpp gànn keneen gànn bi gànn Gueye bi mu bëgg a joxe le jeu man je suis pas d' accord gànn Gueye waaw mais gànn Gueye bi du kii kii xamante ne mooy def le jeu xam nga parce que foofu occasion boo gis dafa am ñu ko déclenché xëy na Sadio Mané mën a déclenché action euh, euh, Iliman Ndiaye mën a déclenché action mais dañuy wax ne bataille du milieu mooy football dëgg football bi fi mu te pour système yi xamante ne Aliou Cissé bëgg na ko lool muy 4 2 3 1 muy 4 3 donc euh, yooyu yëpp bi si 4 4 4 2 Sofiane Diop sur tous les points mën na joué. te Aliou Cissé dafa bëgg polyvalence te saa yi da koy appelé euh, mën ko apporter non seulement dans une milieu terrain à 3 mën na que euh, le créateur dans un dans dans jouer sur les couloirs mën a jouer numéro 10 donc da lay ab sa sa banc loo Je ne sais pas waxuma mën na ñëw jël titulaire mais lépp joueur bu baax lu baax du ma doy. donc man de mon côté dinaa def sama kéemtalaay kattan franchement keroog question boobu mën ma ko poser vu que du actualité dama noonu bañ poser que question du si wax lu bëri quoi xam comme que vu que Massi Brésil ak beneen mooy actualité bi lépp lu xamante ne euh, man ak Aliou Aliou war nañ ko wax bu mu amee 10 minutes 15 minutes dinaa si toog wax ak moom jusque temps bi temps yi dafa xaw a dafa xaw a gàtt xam nga parce que boo xoolee entre entraînement jeexee mu def fi conférence day ñibbi gardien yi mais incha allah bu neexee euh, li nu mel dinaa ko def waxtaan ak le coach mu japp ci combat bi franchement ba Sofiane Diop inshallah mu ñew équipe nationale du Sénégal donc mbokk yi li mu nekkoon vidéo bi soxla na seen xalaat euh, ak seen gis-gis ci commentaire yi dem ci yeneen plateforme yi li di Facebook li di Twitter li di Instagram TikTok bi dooleel ngeen ma bu baax baax Instagram nak des na tuuti yokk leen seen loxo c'est simple da ngeen dem barre de recherche boo leen tàppee seen football TV inshallah da ngeen gis suñu logo bi jaajëfal na leen bu baax baax wax ba beneen sur seen football TV. Hola oh zombie